salaamaaleykum mbokk internet yi nga xam ñoo toog di seetaan Senewood TV rawatina ñi nga xam ne ñoo collé wu escorté si li nga xam ne mooy Senewood TV comme ni ko baaxoo di ko defee nee naa leen li neex ak li xewul ci Sénégal lépp Senewood TV lañ koy moo koy génnee dañuy daal dugg ci rukk rukkurkaat yi wan leen ni nga xam ne moo xew ci Sénégal parce que na tey si ngeen gisee fi ma taxaw tubaarkaar ngeen xam ne maa ngi grand théâtre waaw grand théâtre tey nag Baye Fall yee aye ak Yaay Fall yi naa la njoogu afiye moo taalibe Serigne Afia bi moo ay tey moo woote fi nga xam mooy grand théâtre du ma defee dul ànd ak nànk sama cameraman bu ñaaw bi Aliou Gueye Gueye Ndioro Bassi daal xus nànk dugg ci biir ndax boobu ba léegi tubaarkaala maa ngi taxaw ga Baay Faal takku nañ ni naanaa waaye yaay Faal takku nañ naanaa nañu xuus nànk rek dugg ci biir wan leen li neex ci biir salle bi waaye wan leen coulisse yi wan leen ñi nga xam ñoo wuy si tey Ndiogou Afia Aliou let's go ci biir comme ni ma leen ko waxee woon nee naa leen tey Baye Fall yee ay Baye Fall yee woote ba na Ndiogu Afia moo woote ma daal dugg rek jàkkaarloog sama benn papa papa Bour Gueweul papa nuyu naa la. ay eh, fils maa lay bu baax a baax tey boo gisee lii lépp xew xam nga ni nag Baye Fall yee ay ay ku xew la Ndiogu Afia mu baax mu ñàkk ñaan mi moom suñ Bamba moom Cheikh Ibrahima Fall kon Ndiogu bu xew la nii rek lay mën a mel waaye nag kontaan nañ suñu xol seet na xoola sañsee rek alaa doome nag waaye nag dégg nga naa nga wax léegi ni ma xam nan wuti seen loo wuti am ko mi ngi nii nag ba xaw jamono nag waaye nag nan dem ba ci kanam nga woowaat ma nag ma ñëw man sa papa bur géwal sama xol sedd na waaye nag fils ni ko tey baas macha allah nag seen wuti nag moom dafa xew jamono boo jàkkaarloog moom loo wuti am ko loo ñaan mu nangu eh bisum njoogu affaire bi nii rek la mën a mel ak ci kanam waaw dégg nga ko papa ni mu ko waxee ah nee na tey njóogu affaire moo woote ba tax na tey fii day tuuroo nu ne ma jàkkaarloo tubaarkaale beru jongamaay mineur xale bi tàq ba yàqu nii bëla trikuwaas ba yàqu danaa la kii tey ji daal namul dara sa bu bax na soxna si fi nga fël nooy ne baa xeeboo ko non non xeebuma ko ñëw si guddi njóogu rek jéeri ngoone ma faal ku mën naa tëx ba nekk sama xarit moom bu wootee ñëppee ñëw gudd euh, sarga sëñ sëñ Afia ak sëriñ Fallou Mbacke ma teew fi rek def fa laal ni sànni ko yéen ma gën a xam. waaye xam nga ne boo xeesalee dinaa la tëj 10 ans de la tere ci àdduna duma ëpp na waa ma jàkkaarloog biisu sama mag sama xarit dëgg neexut waa ma nuyee la nu ne. waa sama mag nuyu naa la asu euh, tey nag moom suñu mag ju baax moo ay muy njoogu Afia mbay waaw tey mu ñëw rek grand théâtre ñu nekk ay raqam bëgg a fasante moom rek jàppale ko ci bésu tey bii la vingt 24 ndax dafa woote nag. te taalibe sëñ Afia la baax bëgg ñëpp sopp ñëpp nag tey ñëpp a ko war a wuy si képp kuy taalibe sëñ Afia rek na ñëw fii ak képp kuy Baye Fall di Yaay Fall tey na nga ñëw la 24 bii Grand Théâtre tey dara du yomb tey lépp rek ci ngërëmu Serigne Touba ak Seera Fall maa wax loolu. biir Grand Théâtre ma ñëw fi xam mooy. loosu Baye Fall yi ah. sëñ bi nuyu naa. waaw soxna si fay naa la. ñoo fekk leen fi ngeen def ay déguisement yi macha allah déguisement yi moom moom damaa dugg rek daal di daanu leer ma soxna Asta Afia ma bëgg xam tey guddi gi noo leen ko waajee. waaw nii rek la mën a demee guddi tey gi nii rek la mën a demee ndax y a des mois ñu koy waaj nekk ci répétition yeeg lépp groupe bee ngi nii nag lii dama naan du groupe sax mais famille la barki Serigne Touba njoogu di suñu mag nag di suñu xarit ñuy ñaan yàlla nag buñ duggee fee jàkkaarloog soppe yi leen nii lañ waajee guddi gi. ni ngeen waajee guddi gi mais grand théâtre ku ko xam-xam ni grand théâtre comme ni nga koy waxee rek mbalaxmaan yi moom dañ koy jël rek jël mat la sànni ko rek dëkk fii grand théâtre ko xam ne xam ne mbalaxmaan ñoo fiy tëgg tey njoogu affaire daal di bàyyi fee nga xam ne mooy Sorano mu tëgg fa trois trois fois je pense bien deux fois mu tëgg fa daal di quitté foofu ñëw fi nga xam ne mooy grand théâtre ndax loolu du defi si yéen Baye Fall mais boo gisee lu waral loolu ñun dañoo am ay soppe fu ne ci àdduna dañ daan dëgg Sorano muy fees ba du am ñu du am ñu dugg looloo waral nag ren suñu sëriñ jox ñu ndigal nañu indi leen ko grand théâtre mais du caaginu wanewu wala dara ñun ay Baay Faal kese lañ waaw te njortu nañ ni tamit li nga wax maanaam fi mbalax maan yi ne ñun mën nañ dem ba ba sud leen lees waaw ndax loolu yëpp ay mbiru yàlla la te ñun li ñuy def dañ koo gëm macha allah. da ngeen jii Ndiogou Afia grand théâtre pour la première fois est-ce que yéen ñi amoo l'impression yéen ñi nga xam yéen ay orchestre Ndiogou Afia est-ce que tey bu euh, fan sa Ndiogou Afia duggee ci saal bi est-ce que dañu am tey lu leen neex ba la prochaine fois bu Ndiogou Afia wootee grand théâtre ñu daal di sawar yëpp fii tuuru xale yi comme si biti rek ni ma ko waxee naa la xale yi takku na ni naana ñu may rombee ne tubaarka lay xet sañse est-ce que déwén préparé ngeen tey jii ren ngeen defal leen loo ne déwén bu ñu ñëw dañuy daw loolu tontu bi mooy ci biir demee ba ci biir dinañ xam ba xam li ñu liggéey ñu wane ko foofu noonu parce que ñun ak soppe yi xamante nañ bu baax xamante nañ bu baax a baax a baax ñun maanaam buñ ñëwoon ñoom buñ ñu gisee rek bég nañ waxantuma laak nag ñuy affaire ak yaa ma gën a xam waaw lépp daal ci biir lay xewee incha allah. waaw ba tey ah, ma daal di jàkkaarloog soxna Ndeye faatu soxna si nuyu naa maa ngi lay fay soxna si baax si. Euh, ñu gis nga nekk jànkatu zikrullah tey Ndiogou Afé woote fi nga xam ne mooy grand théâtre nga daal di koy wuy si est-ce que tey euh, ba nga duggee grand théâtre nan la la def yéen nga xam ni yéen jànkati woote biir grand théâtre rawatina jànkat bu jigéen sant yàlla di jul ci bi sallallahu alayhi wa sallam sant suñu ñaari waaj sant cheikhul xaddim di jaajëfal maam cheikh ibrahima fall xanaa bég rek ak kontaan it fier itam ci li nga xamante ni moom la def ndax am na yu fi xew yeneen yoo xamante ne bokkul ak lii mu xew tey kon ñun ñi nga xam te ne dañuy yëngu ci sikar si duñ def loolu bëgg rek sant bu baax a baax te ñaan suñu borom bi defal ko ci feex lu kawe njortam barkeb Serigne Fallou barke maam Cheikh Fall. ay de nee la maa ngi ci kulisi ah ma jàkkaarloo Ousmane Gueye fu caabu Fass tonton nuyu naa. maa ngi lay fay sama jigéen tur bi nan la. Asta la tey soxna Asta Afia toog di wax ak yow. soxna Asta Afia ñu ngi lay siyaar di la dalal jàmm ci bisu Afia mu la yaay jaal mi tey jii soo ñëwee fii ci bis bii duma xaar sax nga may laaj. damay tim micro bi wax ba pare delloo la nga fay sa caméra xam nga lu waral loolu njoogu day xale bu yaru am fulla am fayda waaye kenn du suñu mag yi bu ñuy wax gawarman yi boroom Amérique ñii ñoo ko waral ñii suñu mag xàll yoon bi wan ñu fi ñu war a jaar ba tete ñu bàyyi ñu fi dem Amérique toxuñu naanuñu ñu toll amerique di woote naan ñu suñu xol sedd na mënoon nañ leen bàyyeek daara ji ngeen di tux di naan baa ngeen yàq ko waaye defu leen ko téye ngeen ko ni ngeen ko war a téye teg ngeen ko fi ngeen ko war a teg man sama xel dal na barki Dembo Njaay la ñëw jóge Amérique bis bi bokk na ci li ko gën a ñor mu dellu si parce que ni ko rakkam téye muy njóogu xolam da sedd mu ñëw fekk si rakkam tey ci Grand Théâtre ñiy kontaan nag di rafetlu bis bi yal na doon njëglaayu njóogu doon njëglaayu bépp Baay Faal bu fi teew doon njëglaay bépp taaliba sëriñ Afia Mbàkke bu fi teew Afia mu yaay jaal te yàlla mu doon suñu mujjantal teew yàlla nañu yàlla may ñu koy fekkee ay bis yu baree baree bari télé bi it seen télé bi ma tiim Senewood TV moom wut na ba pare TV boppam daal di wane boppam ma ñëw nag ànd ak sama géer Seleman ànd ak madame Ndiaye bu séeri Madiagne Diagne bu jekko ñooñu laa ñëwal tey pour joxel si leen ñoo ma indi ci bisu njóogu bi waaye kenn du njóogu moom mu ñëw sama kër wax ak man majaañ na ma jël naa lépp man borom jekko waxtaan nag Matal si la xari Diop Ablaye Diop. tey comme li nga ko waxee Baye Fall yee aye ma daal di jàkkaarloog sama benn tonton boo xam ne mooy tonton Ousseynou nee naa la tey li njóogu di def ci tonton Ousseynou la ko gisee njóogu bu demee bay sikar tey tonton Ousseynou la ko gisee ndax nee naa la tonton Ousseynou moo génnee li nga xam ne mooy Zikroullah ko au d' international tonton nuyu naa. waaw maa ngi am kontante bu baax ci teew fi ci bésu njóogu ndax ay at daf may faral di invité yàlla du ko tudd ba yàlla def ma fekke ko damay kontaan ci lii bu amee tey jii daf ma dama ciy kontaan ndax dafa may jox loo xam ne tey dama tey dama dundaat parce que ñun lii moo ñuy dundal ñun lii lañu am lii mooy sunu culture ñun ci lii lañuy dund kon bu yàlla defee tey njoogu dem ba teg ko fi ci grand théâtre dama ci kontaan trop di ko ñaanal ñu am réussite bu mag ci lii nga xamante ne moom la sumb fi mu ci bëgg àgg yàlla na ko fi yàlla àggal di la wax nag ne moom tey moom dadul yomb comme tey dadul yomb tey yow nga xam ne yaay tontu yaay ndijaay Ndiogou Afia te li Ndiogou di def tey mën naa ne ci yow la ko gisee tey nga dem ba sa jarbaat toog tey di tëgg fi nga xam mooy Grand Théâtre salle bi gën a mag lan la la def tey ba nga duggee bi Grand Théâtre ba yëg yëg nga am waaw xam nga man damay faral di wax ne benn jant moo am partout dans le monde fu waay toll seen ko kon ñun bu fekkee ne dañu doon def loolu tey ba Ndiogou mi ñëw di ko def ñun dañu war a aj njóogu dañ ko war a dañ ko war a bége moo tax tey dama dama kontaan ba nga xam ne mënuma sax wax li tax ma ne la du yomb nag am na lu ma nar a def mag ngi njóogu ci kanam kon xam naa ne foofu lañ koy àggale jërëjëf